septembre 2013 ñu nge am mbégte ak contentement bu mag tey nag gis ngeen ne émission bi euh, macha allah dañ ko def ak mu nekk émission boo xam ne à la doome doon ndax li tax mu doon à la xam ngeen ne Pierre de Silva mooy doon réalisateur ba te moo ci nekk ci waxtu bi wax ak ceeg madame Guissé ca wet ga waaye tamit Babacar moo nga ca wet ga ànd ceeg ki nga xam ne nag moom mooy Tanor moo nga ca wet ga Aline moom tamit ma nga ca wet ga toog di leen wax ne nag ñu kendu kendal ak jàmm mbokk yi bu ñu leen waxee fiche technique ba pare dañuy ñëw nag ci fiche bi nga xam ne mooy tax ngeen xam émission bi nan lay tëddee danañu ñëw ca Alsaan Ngom xam ngeen ko Salsoros la waaye tamit euh, mu nekk producteur deuxièmement nekk politicien moom ci boppam nee na ndox mii nga xam ne nag moom mooy euh, mbënn bi am na ci solution ndax ñoom Salsoros yi lu tax ñu am ci solution benn dafa dëkk ndox bi yàgg ak ndox bi te am na yoon boo xam ne bu ñu ko defee plan fendi dana gaaw fendi bu ñu nag danañ dem ci Viviane euh, Chidid Ndour moom mooy tëj émission bi tey agression bi nan la amee woon ak nan la demoon laam-laam yi coow li na trop waaye exclusivité bi di ngeen ko am tey maanaam Viviane nan nañ ko agressé ndax am na war a amul moom ci boppam Viviane dina toog fii ci émission bi ngeen gis ko mu daal ko defal ba mu leer nañ ngeen dundaat seen boobu mbokk yi pël yi nga xam ne ñooy jaay xar yi dem nañ ci journal bi nga xam ne mooy Sud Quotidien ak journal bi nga xam ne mooy euh, l'Observateur waaye tamit boo xamee ci journal bi nga xam ne nag moom mooy réew mi bind nañ ko ci ne neñ daal toogee boobu ba léegi kenn gisu leen ñoom ñu commencé di gis ñuy jënd xar yi <laughs> ah xam naa ñi ma doon seetaan dañ yaakaaroon fu ma génne dafa nooy waaye nag ne fu ma génne mooy le petit écolier <laughs> way lépp ci wet gi ah mais loolu dara nekku ci gars yi bàyyi li ngeen def waaye ah bi moom et eh, borom bés directeur général bi président directeur général bi laaj naa femme bi xaaral parce boo ko defee sax dañu yaakaar ne dafa dal laaj naa femme bi nee na ma besti yi ah, yii jeex na miso yi léegi dama bëgg suba nga indil ma ñaari carton bu sew bu bleu bi ak bii ak beneen bu bleu bi ma koy garder sama bureau ah loolu laa bëgg nga indaale ma frigo baar parce que tamit ñoom bu ñu ma koy jox day tàng waaw te vraiment kuy bu tàngee ngeen naan lu tàng loolu baaxul kon directeur général monsieur Tall bu fekkee ne danga nga voyagé sa jabar bu fekkee mu may seetaan sa soxna na ko wax ne ko caanee nee na boisson yi miso bii dafa jeex fii ci télé bi bu sew bi ak bu bleu bi na ma koy indil directement sama bureau may ma frigo baar bu ma ko dugal mu sedd su ko defee samay gan si naan ma ciy liggéey ma góox bisimilah bii dafa sedd tey non mais xam nga xam nga ñoo sonn gis nga eh yéen yéen yéen a tere ñi nekk ci kaw télé bi réalisateurs yi ak waa Russie dañ koy séen nag mais mosuñu ko ñam naa seen xol yee ngi bon moo bu ñu wàccee dem seen kër seen waa kër yi naan waa mais yéen mission bi ku ca publicité duñ ci am xam naa ne dafa non daf ñuy sonal foofu quoi fekk arab naanu buñ ko ba tey hmm. instant bi ñu ngi ma jéppi suñu coolu xaalis ba tey kenn xamagul fan la mujjee waaw coow xaalis kenn waxatu ci dara waa xaalaa daf leen wér di yéen ñëpp <laughs> xoolal xaalis ba romb gars yi ci parce que xaalis bi bi ma ko Youssou Ndour joxee pour ma benn paa pël laa woo mu mu fasal ma gars <laughs> romb sa gars yi mais gars yi mu leen may soxla rek <laughs> ki gën a rëy laa mel yeew maa ngi bàyyi ba ngeen soulever problème xaalis la ngeen xool da <laughs> ngeen jékki-jékki ñu affecté leen ay RFM Tamba oh waaye temps yi nag seen àq dal na ma temps yi dërëm laa yoroon billahi temps yi non temps yi sonn naa trop oh ma xaalis sonn naa sonn naa moo tax alalu jàmbur kenn du ko lekk li ma def gars yi dafa ñaaw kenn ku nekk bu ma la joxoon sa àq du ay caaxaan kenn ku nekk waroon nga am 30 000 mu ne ku nduufaañ lekk yëpp moo taxit temps yi maa ngi bëgg a dee dërëm laa yorul <laughs> waaye sama gars yi waaye ñoo lekk xaalis jàmbur baaxul waaye baal leen waaye mu rees ci wet gi no comía para para palma mi me entró sabes de porque no vías los eneches que han pasado, he sufriendo mucha solos y amargura. Yo no canto como cube es pedirte esa carta de mi porta malmitada. La hiceraste para jorante de mi gente y no puedo soscosire para tarde. Ven y ven, que por ti que estoy sufriendo. Y de lo que se canto que yo no duermo. Y sabe ver su que a mi amor. Ese también porque mami. Ven y ven, que por ti que estoy sufriendo. Y de lo que se canto que yo no duermo. Y sabe ver su que a mi amor. Ese también porque mami. Ven y ven. que por ti que soy sufriendo y de lo ese cantón que yo no duermo. Pierre da Silva am nañu mbégte ak contentement bu mag euh, di ñaanal gars fan bu gudd ak wér yaram tamit di gërëm euh, képp koo xam ne nag yaa ngi Show yal ko yàlla seetaan may ngeen seetaan ko ci jàmm di ci am mbégte contentement di nuyu tamit euh, kilifa diina aada cosaan nekk ci réew mi yëpp di grand chef religieux yaram Cerno dundal yow nga xam ne nag fas drapeau l'islam tas ko ci Sénégal ak li ko wër Cerno nuyu nañ ko di nuyu tamit Modou Anne Youssou Touré waaye tamit Aminata Dia nekk kër Thierno waaye di am mbégte contentement ci El Hadj Ousmane Ndiaye Euh, Angalou Moussa nekk kooku wàllu yàlla la ak soxnaam Adja Mam Bousso Cissé waaye dañuy tamit Abdou Karim Mangane di grand chef religieux marabout opérateur économique président directeur général Soleil International di grand cultivateur moom Abdou Karim Mangane di sama xarit maa ngi koy ziar di ko nuyu di nuyu tamit soxnaam madame Mangane Sadio ñu koy nuyu madame Mangane soxna Fatima maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp et tous les enfants de euh, notre ami Abdou Mangane di nuyu tamit Oustaz Ale Badara Sy di grand chef religieux nekk foofu ca Mbour ak soxnaam Fama Samb Awa Ndiaye ñoom ñu nga ca kër ga El Hadj Ibrahima Aydara Tidiane ñu koy ziar di suñu papa di nit yàlla baaxal ak Serigne Habib Gueye di chef religieux nekk ca Thiès di nuyu tamit Serigne Maam As mbay ñu koy ziar waaye di nuyu tamit Abdou Thierno bari nekk ca Bogol ca Casamance am mbégte contentement di ko ziar waaye di ziar tamit Serigne Mama Sougou Wadaan Cheikhal Cheikh Adama Niang nekk ca Thiès di am mbégte contentement ci famille Wadaan yëpp waaye di tudd bu baax euh, ki nga xam ne nag moom mooy euh, Serigne Mama Sougou Wadaan ak euh, ki nga xam ne moom mooy Ahmadou Sougou nekk kër Jéeri Wadaan nuyu nañu bu baax di nuyu tamit képp koo xam ne waxtu bi yaa ngi seetaan moo cardinal Théodore Adrien Sarr moo koy ziar bu baax di ci am mbégte ak contentement waaye nuyu tamit maître Fatima Fall huissier de justice nekk ca Ndar yal na ko yàlla defal jàmm léegi nag <laughs> ki ñu seeti alawo Alassane Ngom ana Alassane e père Alassane e ana mu e père waaye Pierre booy Pierre affaire xaalis damay foo rek man wóor na yàlla temps yi man temps yi nu mu demee la mais Pierre man damay foo rek non bilaay naa leen jox yéen ngeen dama doon foo non booy bilaay booy bilaay fii booy maa ngi sama kàddu li ngi nii dara nekku ci bilaay maa ngi nii tamit lii du ay caaxaan ah maa ngi dafay tamit gars yi ah, sama waay ngeen quoi <laughs> ay ay ñaa ah. ma eh Poulo eh eh fas bi parce que gars yi seen yaram fas dindil Poulo dindil xaaral woo ko ah kay xaaral woo pël bi eh. jëndal eh, fas bi nga fasoon nga <laughs> eh, xam ngeen paa bi <laughs> paa bi moo nekk ravin <laughs> moom moo créé horizon ah deux mille trente moom horizon deux mille trente salsoros la producteur la musicien la yaa may dégg waaye tamit investi day investir xaalisam pour Sénégal mën a jëm kanam nee na nag dafa am solution ci mbënn bi ndax fi nga xam ne mooy Kër Massar te mu war fa nekk moom ci boppam am na solution boo xam ne ndax ravin ci ndox mi la nekk ci ginnaaw ndox mi te dëkk nag ravin presque 40 ans dara débordé wul moom nag day indi xam-xam ci plan Fendi nañ ko seeti ki nga xam ne moom mooy tonton Alassane Salsa Ngom <laughs> li may njëkk nuyoo parce que ku nekk ci li ngay liggéey ci ngay nuyoo ma ne bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour bonjour salaamaaleykum maaleykum salaam maaleykum salaam salaam salaam eh pararam <laughs> voilà xam naa Kouthia euh, nit ku baax la waaye tamit euh, damay gërëm euh, Sénégal yëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant parce que man salsoores la producteur la musicien la waaye tamit euh, dama xam li nga xam ne moom mooy problème mu euh, askanu Sénégal ci li nga xam ne moom lañ koy dundoo bon euh, d'ailleurs de toutes les façons xam ngeen li ko dalee Guédiawaye ba jàpp ci banlieue bi ñu bëri dañuy remercier ki nga xam ne moom mooy euh, Alassane Ngom pourquoi parce que xale yu jigéen ñi ci bëri seen mariage yi dañ doon dem ba biir Dakar biir ville waaye léegi foofu la ñuy rem ci euh, sama complexe culturel bi pour ne pas faire de trop de publicité foofu la ñuy yem deuxièmement loolu indi na benn apport culturel boo xam ne permettre na euh, euh, épanouissement ak loisiru euh, jigéen ak góor yi nekk ci banlieue bi ñu bañ a am benn complexe d'infériorité avec les citadins mooy ñu nekk ci ville bi maanaam dëkk ci côté Sacré-Cœur Parcelles Assainies côté zone boobu du am difficulté pour mën a épanouir donc solution boobu def nañ ko de côté culturel côté sportif tamit xam ngeen ne on a fait toujours des actions mais lu ci am solo trop moom mooy euh, ravin mooy fi nga xam ne sama gox bi fa la nekk boo ko séenee da dem moom mooy lac bi juge foofu dem ba technopole kon ndox mi ak mes partenaire j'ai des solutions bu ñu ko mën a defee ba sénégalais yi di dëkk ak ndox mi te du ñu am benn contamination et puis bu ñu ko buggul dëkk tamit am nañu ay solution yoo xam ne nous les salsoros on a décidé euh, mooy ñi fecc salsa ñi jouer salsa et aussi le club des salsoras nan la ñu mën a def ba ndox mi nga xam ne mooy plan fendi parce que dangay ngat ba pare tour mu daal di fendi ndax olof dafa wax ne balaa ngay fendi da ngay ŋàcc ndax bu fóotee daa da ngay fëgg weer mu fendi nga weri loolu la ñuy wax fendi waaye boo xoolee ñàcc boo koy def da ngay jël euh, li nga xam ne moom mooy sio war a paan daal di xëcc xuus nga am ndox nga ñëwaat arrière sànni boo pare da ngay fobere attends da ngay fobere euh, euh, attends ma war leen fii laa tegoon sama serviette voilà voilà vous voyez serviette mu ngi nii fii ma teg fii dafa am ndox jigéen ñi nekk Sénégal yëpp bu ñuy fobare bu ñu amee problème mu digg xam nañ ne fii ngay taxaw yaa ngi def ndox mi di def nii ban fecc moo méngoog ak fobare wax leen ma ban fecc moo méngoog ak fobare pararam pararam param param pam xam nga lii ku ko def aca en tant que guitariste xam nga boo defee nii fobe rek nga taxaw def nii ne nii weñ weñ weñ weñ fëgg fëgg weer xaar mu fendi donc man am naa solution pour Kër Massar fexe ba ndox bi nga xam ne moo fa nekk ci inondation bi ngàcc ko et puis deuxièmement baykat la producteur de mangue de limon et de beaucoup de fruits mais tey bu ma yàlla dimbali woon ba ma fexe ba jeunesse bi nga xam ne nekk ci banlieue bi ma nekk seen maire ci côté bi nga xam ne fa bëgg xëcc dama ne kon solution du travail dina am waaye li ma ci gën a bëgg mooy sénégalais yi ñëw fekk si ci plan ŋàcc ak fendi vous voyez ŋàcc et fendi kon tous les salsoros Papis Gadiaga euh, Seka yéen may dégg Pape Fall euh, Khalifa Gueye tous les salsoros ak ñiy def émission salsa ak ñiy bëgg salsa sen xol je les convoque dimanche prochain ñoom ñëpp nañu indi seen serviette ak seen sio su ko defee ñu daal di def li nga xam ne mooy plan Fendi et plan ñax une deux trois s'il vous plaît musique je vais vous montrer ayca Alassane Ngom horizon horizon 30 000 nii la ak sa solo si nekk Gambie yëpp ah. Yo no canto como cube es bebirte esa carta de mi puerta malmitada. La hiceraste para joderte de mi gente. Chueque. Y no puedo solo si de para tarde. horizon. Yes. Fobere. Nit, nit, nit, nit. Y sabe ver su que a mi amor. Ese también porque mami. Ven y ven, que por ti que soy insuficiente. Ala a mi amor. Ese también porque mami. Ven, ¿Qué

Pierre Da Silva am nañu mbégte ak contentement di nuyu tamit euh, Sarata Diallo di Adja ñu euh, la maman de Mame Diarra Désar et sa cousine Emma Diatta ñu ngi euh, Dakar waaye waa Ziguinchor actuellement dañoo vacances à Dakar di wax clin toute la population de Soupe Papaye foofu ca Ziguinchor quartier la Soupe Soupe Papaye kooku mooy Soupe Papaya waaw suppu papa yi foofu ca Ziguinchor waaye clin d'œil à Chérif Diallo gérant 48 heures Cap Skirring de la part de sa sœur Sarata Diallo qui euh, fait les Sénégalais qui sont à Paris mais actuellement en vacances au Sénégal Diary Gassama nekk ca la part de Tange de Sen TV qui fait un clin d'œil à Diary Gassama depuis Paris saint nekk ci unité 26 fan su Kouthia la ak Ami Kébé Madame Faye ñoom Aïta Ndoye Cissé ak Ndiku Gaye de la part de la grande dame de unité Euh, foofu ca intervention ku soppe El Hadj Bilal di fan sam ñu koy nuyu de passage ak Ami Kébé madame Faye Aïta Ndoye Cissé euh, ak ki nga xam ne mooy Ndiku Gueye de la part de notre chère euh, sœur elle s'appelle Mamalo Lady Gaga et Rahana de la part de Ndeye Binta fay ca HLM 5 ki xam naa nag dédicace intérêt la ndax ki ko bind bi mu koy bind ko yoxosu mami Sada ca West Foire cité mam mam Raan ñu koy nuyu waaye tamit di nuyu Natu Fall ñaari Euh, boulangerie foofu ca Géejawaay ak bébé Soxna Fall de la part de Adja Fatou Mbodj rab jinne foofu ca Géejawaay am nañu mbégte contentement Pierre <laughs> Pierre xam nga koy seeti directeur général bu port Cheikh kante mi nga xam ne nag moom ci situation économique bi nga xam ne moom mooy crise de ndox mi bi mu amee mu jiite géej am na solution bu mu def waaye da ko def Dakar daw def ko Fatick ñu xool ko moom tamit en tant que directeur port lan lay xalaat ak lan la wax moom ah <laughs> kii tamit c'est un grand ki fi jóge léegi ki fi jàll léegi Alassane Ngom producteur la promoteur la industriel la waaye cultivateur la waaye kii moom musicien la intellectuel la kii moo bind livre livre boobu nga xam ne mën bind immatériel l'homme immatériel mu ngi nii eh kaay euh, maa ngi nuyu population Sénégal yëpp Euh, euh, soo gisee tey ma def euh, ngeen baal ma dama doon sëlmu ci ndox mi parce que Sénégal yëpp xam nañu ne y a un problème d'eau donc fi nga xam ne fa nekk ba taw te nii di Fatick mënuma ñëw ci mbënn bi di sol tubéy bu gudd donc pour wan leen ne daraja kilifa bi nga xam ne ak mbubbu kilifa directeur port bi ma sol ci kaw muy veste cravate mu normal ci suuf ma këtti ko ndax ndox mi mun cee xuus mooy wane ne que labi na fi palamoine yére mënul tax ñu ne diw mooy diw sol naa tey romb ñu bëri ñu ngi reetaan waaye li ci am solo mooy mun naa xuus si ndox mi ndax ku jiite port ndox du la jaaxal bon duñ fi nekk di jël ay moto pompe attention non non moto pompe essence koy dawal ki koy gérer danga koy fay bu moto bi paanee ñu kii war a joxe essence bu ko fekkee muy nelaw ndox mi tawaat ci koom dafay dem am naa solution ndax xam ngeen ne fi may diriger ay bato fay jaar ay chaloupe fay jaar ay géej fay jaar ndax ku yor port wax ndox bon j'ai deux solutions euh, le plan Fendi bi nga xam ne moom le président Macky Sall Mimi Touré proposé ko ba nekk ci di liggéey man mi nga xam ne damay liggéey ak ndox je sais que ne euh, ban solution dañu mën a jaar pour ndox mi mën a dem te duñu utiliser des moyens parce que dañuy xeltu ak suñu xel fii ci Fatick wara ci dakaar ak fu mu munti nekk ñi nga xam ne yàlla may na leen ñu am capacité capacité parce que dañuy jël ay éléments yu nafas am na ay comprimé gis ngeen ko ci télévision yi ñu koy publicité ndox bi lu mu tilim tilim ak lu mu bëri microbe boo ko ci tëmbalee benn mu nekk loo pure mais ndox mi jógee ci yàlla buy wàcc dafay pur bu dalee ci suuf dafay fekkee impurité am na ay médicaments yoo xam ne buñ ko ci tëmbalee ndox mi dafay nekk boo xam ne c'est buvable pour la sécurité de tout le monde parce que Kër Momar Sarr ndox bi ngeen di naan boo leen waxoon fu mu jógee tamit ci condition yooyu la donc léegi na ñëpp ñu naan plan sukku sukku ñi nga xam ne état bi dafay génne benn euh, trésorier boo xam ne dafay dépenser ci li ñuy muucu bu ñu defee ni sëpp suñuy loxo ci ndox mi ñi nga xam ne am nañu capacité citerne borom koll yi nga xam ne mun nañu guux ñu def ko plan guux une deux trois tous les Fatikois ak ñu dëkk Fatick sëgg nañu ci ndox mi fekk sànni nañu médicament bi ba ndox mi transfert mu nekk du ñu daal di def. plan sëgg buusu bu ma ne so plan sëgg buusu mooy daal di sëgg xëcc ndox mi ci sa biir buusu ko mu dem fan la jëm parce que fi nga ko buusu bu fekkee da nga ko buusu ci même environnement bi la nga buusu day wër képp ñëwaat boo muccoo mu ñëw ndox maa ngi ni gis ngeen biir bi xam nga dara nekku ci ah ah dara nekku ci donc gros plan ñu gis ndox biir bi gis ngeen ko ndox maa ngi nii léegi plan guusu vous voyez la nga muucu moom ngay guusu muucu mille guusu deux mille muy journée trois mille Muccu 1000 guusu 2000 buy gu muccu na 3000 deux 1000 guusu 2000 muy junne 3000 muccu 1000 guusu 2000 muy guddee 3000 léegi toute la population de Fatick dinaa leen bàyyi ak une forte somme d'argent ngeen préparer li nga xam ne mooy plan muccu buusu fendi muutu buusu weer mu fendi muutu buusu weer bu fenki te li wax Macky Sall bu fekkee ne directeur SONES dafa yéex nañu boole port ak SONES def ko ndax ko géej ku ko traité dindi xorom bi jox ko population ñu naan j'ai cette capacité de dessaler l'eau en dessalant l'eau l'eau devient non salée non sucrée mais pure parce que l'eau de la mer peut être buvable parce que les poissons sont mangeables et ils vivent dans la mer Cheikh Kanté directeur port en attendant de faire port et SD et SONES à ma direction Kanté Mojo Bousso jus de fruits miso moom lay safo jus de fruits miso moom lay safo miso ñaari façon la bu nekk ak guwam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 te jubbal la war na sargal la war na Cheikh de ci tuun sa ngam ba Cheikh Saliou amoon na jaajëf jaajëf tey ji ma way la ndax sa jëf ji rëy na tey ji ma way la ndax sa jëf ji rëy na ndaw ñaa ngi nii naroon na bon nga def ñoom yàlla Mbàkke yaay dem di dindi te ku dem nga dindi bu daamul woon xaw ma fu ñu jëm yaay suñu seen jaajëf jaajëf say ndaw da noo yees te fu ñu dem nooy fës say ndaw da noo yees ak fu ñu dem nooy fës ngir defaroon ngërëmal yàlla woon rek jaajëf jaajëf yàlla la tànnal ndaw ñi nga àndal sang yàlla la ndaw ñi nga àndal ñu la doon borom mi di jaasa yu rëy jaajëf jaajëf Cheikh Béthio raw nga yow nga ndax lii lépp yow la yaa nu xamal na sang bi Cheikh Saliou amul ma jaajëf ñoom ñaar dem nduroo Matar Jom nee gis-gisi Bamba gis ci jëfi Cheikh Saliou xam ne duñu ñaar jaajëf sang yaay fekk ku ñëpp xeeboon lool nga defar ko ban koy yaay fekk nit ku ñàkkoon lool nga teral ko bañ koy noo yaay fekk nit ku réeroon lool nga defar ko bam Omaro bu bees tàq clip bu bees tàq exclusivité ci biir Kouthia Show kon ni mu ko doon defee chaque année bu génnee clip jaarale ko ci Kouthia Show daal ci barkeelu ndax moom daal gëm na ne bu fi jaaree rek yàlla dana ci def barke ñu koy ñaanal nag euh, ci barke yi mu daal di koy topp nag euh, ndax ku delloo njukkal euh, Cheikh Béthio Thioune delloo njukkal seen Saliou Mbacké yaakaar naa ne ci yoon bu leer nga ko teg kon Omaro ñu lay ñaanal bon carrière waaye tamit toutes nos félicitations d'avoir passé en l'émission incha allah ci programme Télé Futurs ci jàpp ndax clip bii ma gis yéeme na trop rafet trop te am na professionnalisme kon tous nos encouragements à Omoro qui vient de sortir une toute nouvelle production de clip euh, de dernière minute sorti aujourd'hui et montré aujourd'hui ci Télé Futur Média Pierre da Silva am nañu mbégte contentement ci loolu di ko euh, depuis Europe et tout le personnel ñu ngi seetaan dinañ am nañu mbégte contentement directeur hydraulique ak Khalifa Wade ñu ngi leen di nuyu waaye tamit euh, di leen wax nag saalum mu ci boppam nag mu ngi félicité équipe bi waaye tamit man El Hadj Birane nga xam ne supporter ASC boobu la la laa bokk ndax ASC bi super étoile lañ ko tuddee te buñ ne super étoile benn la fi Youssou Ndour ñu koy wax moom ci boppam fekkee dégg na message bi mu yëngu jàppale xale yi waaye tamit képp kuy cadre Saalum Saalum nekk Dakar sa loxo war nañ koo yëpp ci ay bi ndax wax dëgg yàlla amuñu ay moyen ñu wax maître El Hadj Diouf ak Souleymane Ndéla Ndiaye jot naa yëngu Mariama Sarr ñu daal di yëngu jàppale équipe bi ndax ñoom laay supporté ca Kaolack ndax équipe bu am solo la ñu leen di ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram delluwaat di ziar suñu papa El Hadj Mansour Mbaye di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram suñu soppe la bés bu ne mu ngi conseillé jëmale suñu liggéey lu jëm kanam lu ci baax mu wax ñu lu ci bon ñu daal di koy gàgganti ci ay xelam ñu kooku suñu papa la Denis Diop ak euh, Kébé Cheikh Biaye waa Max nekk Max Clim nekk ca Ouest Foire ñu ngi leen di nuyu de la part de euh, El Hadj Abou waaye nag personnel u Sénégal étanchéité Fallou Ngom ak soxnaam ña nga ca deux voies liberté si si madame Ngom ñu ngi koy nuyu nee nañ bëgg nañu trop waaye di euh, bu baax ki nga xam ne moom mooy Fatou Sey actuellement à Dieuppeul elle vient de Diourbel en vacances Pierre Da Silva pour ne pas trop tarder bu ñu jógee ci clip omoro boobu dañuy dem seeti ki nga xam ne moom mooy président des éleveurs ñu ngi ci deux voies liberté si ñaar nañu Samba ak Yoro am na lu leen metti te boo gisee journal quotidien ak réew mi observateur ma nga ca biir am na lu ñu wax nañ leen déglu ñoom Samba ay ikam su ko defee ana lamaraan anamu eh, Yoro Yoro Yoro argaay ey eh, kay maa ngi nii kam kaay soobee yàlla tey rajo bii di te RFM dinañu dégg tey alhamdulilah salaamaaleykum kii Yoro la man Samba ñu ngi ci deux voies liberté six yi Dakar. eh kay dëgg la kay. bi ñu fi ñëwee ba léegi ci opération tabaski def na semaine. Hmm? ñu ngi tombé ak affaire ndox mi. jur gi naanul ñun naanuñu. kenn waxul kar ñaata te bés bu nekk ñu jog njëgu kar. eh kay noonu man li ma ci amul lu ci doon sànni kay lenn dong la. Eh. nee nañ cin bu naaree nekk bu bakkee keeñ. Eh, keeñu gulte. waaye mat sax moo fi amul waxatuma laa cin ndax bara ngaa togg kay di nga am ndox. waaye. boobu léegi kay ñu ngi dajal suñuy kar. fii ci Liberté 6. Liberté 6 kay da ngay fayoo da fay camion bi nga xamante ni mooy indi yaa ko fay bopp bu nekk ñaari téeméer. bopp bu nekk ñu ngi ko fay ñaari téeméer. boo indee téeméer kay loolu sax mu dikkee la ñaar fukki ju téeméeri junni boo ko koolee. waaye nee naa kay taxi yi ñu ci teg rek kay yëpp na loolu kam na. maire yi nekk ci yoon boobu bés bu nekk ñu takaw nañu kar bu nekk juuti ñaar fukki dërëm ak juróom-ñaar nañu fay ko bopp kar. te kenn du ci dara kay li ñu war a jokk yëpp koy jokk ok man bi ma déggee ne Sones ak S eh, ki ko jiite Haal Pulaar la dama ne kii kay mu ngi teg gàcce nag séeréer dinañu reetaan. ok reetaan nañ ba pare. nag bu fekkee ne loolu kenn mënut ci dara reetaan nañ ba pare. kar yi du ñu naan. nit yi duñu naan. Eh, kar yi dañuy yooy. Eh, kay fi mu toll nii kay. boole boo ko sangul a duuful. loolu kay moom kay werantuur loolu kay. fu nit wara a naanee kar waru fa naan. fu eh. kar war a naanee nit waru fa naan waaye démb ba tey ñu ne kar yi ñooy naanandoo. ñooy naanandoo mbarka bi kay buñ ko sottee kay noonu kar yi war cee naan ñaari fan waaye ñun ci boppam ñoo koy bokk ak kar yi. ba léegi nag kenn takawul na nañ kar yii ñaata lay jar. Ah, waaye tamit tey kay loo xamante ni ñu ngi koy préparé. bu ñu toogee fii ba ñaari fan ñetti fan gisuñu lu ñu kam kar bu ne kay noon bu ñu jaayee ñaar sax mun nañ ko jaay ci benn prix boole caag di la nekkal te di la dàq li ma ci gën a neex mooy dañuy def promotion. promotion mooy maanaam ku jënd benn kar. ñu may la ñaar ñu may la beneen. kar bu yooyu. Ah, kay duñ ko bàyyi fii kay. muy bëgg a deekar loolu duñ ko seetaan ba pare suñu jabar yaa ngi ne toog di jaay soow. Hmm, kay noon ñu may leen mbii nag soow. sa eh, may leen saaku. dinaa la may ngooñ. may la soow may la buum bi nga xam ne moo koy yóbbaale. te boo jëndee benn kay noonu mun nañ ca teg beneen kay. muy gaaw leen jënd suñu kari balaa ñuy dee suñu la ko. dimbali leen ngir yàlla rek kay noonu kari mooy ndog bii manqué ba tey. te ndog ñoo koy bokk ak ñoom balaa ca ndog mii kay ñun sax dinañ ànd ak. kari dee mooy man damay takaw kari di na kar laa. ndax seen xeet yii nga xam ne leen ñun sanguwuñu. xeetu xaar yi jóge ci xaar yi ñëw ci ñun. suñu kër gi jóge ci ñun ci xaar yi. mu jaxasoo kenn xamatul kër yaa ngi may wax ak yow ni sax yaa ngi moo ma ne directeur SONES bi bu dee xaal pulaar la na nga démissionné buñ la buñ la jam naa ñu de bu fekkee ne mënoo indi ndox mi na nga ko démissionné ñu jox ko séeréer. moo gam nag kam nga lan la. Eh? ki fa nekkoon séeréer la Diouf la sant. ñu jël fa indi kaal pulaar. moo fa jóge tukulóor toog fa. Eh, kay dafa war a soppeeku léegi kar yi naanuñu nit ñi naanuñu. dafa war a soppeeku dañuy wanteer kar yi. dañu war a soppeeku war ñu wanteer dañuy wanteer kar yi kon kay wanteer fii ka kay. ku jënd benn ñu may la ñaar. moom kay te boo kee fi sax kay may la dolli ci beneen sax la ñu daan soow. am na kar boo xam ne tooñaa la tudd mooy kar bii nga xam ne. tànk bi dañ def nii lay def tànk bi dañ def nii kay. soo ko këccee mu def nii la mu def nii kay nii kay lay def kay. soo ko këccee mu def nii ndee. <laughs> soo ko këccee. mu def nii lay def kay noonu nii lay def tànkam soo ko këccee. bu ko def ngay def jàpp jënd taran ko aj. kon eh pulo noonu pulo gaade. kii kay noonu kay pulo gaade. kii kay gaade jënd gaar yi. kaa leen jënd kaar yi pulo wuunoon pulo gaade ñëw leen kaa leen jindi kaar yi pulo wuunoon pulo gaade kay ko noon kaa leen jindi kaar yi pulo wuunoon pulo gaade kaa leen jindi kaar yi pulo wuunoon pulo gaade kalma ne kaa leen jëndi kaar yi okom ndiyam okom ndiyam okom ndiyam kaa leen jëndi kaar yi okom ndiyam okom ndiyam de kay mine pulo gaade man nen kaa leen jëndi kaar yi kacal mbaal bi kay kaa leen kaa leen jënd kaar yi no jigéen kacal mbaal bi kal moo ne kaa leen jënd kaar yi. ah kii la këccël mbaal bi. kal moo ne kaa leen jënd kaar yi. ah comme nii yàq. eh kii leen kaa leen jënd kaar yi. ah comme comme nii yàq. kal moo ne kaa leen jënd kaar yi. eh di nga ma yëngal yëngal yàq. tey bu leen ma yëngal yëngu laay. tey eh, bu leen ma yëngal yëngu laay. Pierre nuyu nañ bu baax waa États-Unis ñoom Moussa Sidibé Sali Sidibé waaye tamit di nuyu bu baax Moustapha Sidibé El Hadji Sidibé Kumba ah, Sidibé ñoom ñëpp ñu ngi ci New York waaye di nuyu DJ Babs et les ah, Américains de Rims de la part de notre ami Mbouba Dialli notre ami Mboub nuyu nañ bu baax une fois encore Maman Lo Unité 26 Fans Kouthia Ami Kébé Madame Faye euh, Chéri Lamine Faye Aïta Ndoye Cissé nuyu nañ ko Ndiku Gaye ñoom xam naa ne waxtu bi daanu nañu Viviane Chidid jóge na répétition il fait 5 heures du matin nañu seetaan action bi nan lay demee demee ak fan lay amee ma nga jugee fa nga xam ne mooy répétition di dem këram allo Mbacke Mbacke Diom welcome you guys de jóge naa shawarma ba oui maa ngi dem kër ga Mbacke waa d'accord ok kon euh, nice quoi jël nañu mooy affaire yooyu kërëb kërëb ana gars yi woote nañu waa ok Mbacke maa ngi dem excellent parce que kër damay egg kër ga rek ok <laughs> all right now la ci kii kii si xaaral bi buntu kër gi attention waaw waaw la la waaw waaw waaw gardien Samba maa ngi ñëw ku ma laajte dama sonn ah oh, aywa oh, répétition yi métti na oh. Samba. pardon. jëlee ma charger bi nekk sama oto ci suuf indi ma chargeur bi ci 4 x bi. bii. oh ya. la mu ngi ci ab mu ngi ci capot mu yëkkatil capot bi chargeur bi mu ngi ci. oui. ok. yi sax man maa ngi sonn waaye préparer. Viviane ngi leen di béggeel. Viviane ah baa bi tëdd noppali ko sax. Samba yàgg nga de oui voilà. ah jàpp quoi. ok. merci li la. enveloppe bi nga bàyyi woon ci biir. 5 millions ah, ko gisee. mu ngi woon ci ma ci biir oto bi. ok d' accord. ok kon euh, oto bi ah. d' accord ngeen garde man ok d' accord ok on a bien mangé. Oh, la la la guna ma tëdd ah la la la ah, ah, Samba. ah non kon du moom dafa mel dama dégg bruit ah je pense que ne bruit bi ah, euh, ah. am na woy bu ñëw sama xel sama anniversaire bi sama anniversaire bi non il faut ma woo jijak mu dem gis euh, xale bi mu tëggaat fii parce que li ñëw léegi neex na trop li ma xalaatoon li ma gisoon Beyoncé Beyoncé Beyoncé eh non boobu baax na ah bàyyi ma tëdd sax bàyyi ma tëdd loolu dana neex de Beyoncé Beyoncé kañ ngay ñëw kañ la les kiss Beyoncé ngi nii ci salle bi ah da dina neex su ko defee waale dugg si su ko defee waale dugg si waaw waale si Beyoncé affaire ah c'est bon waaw ban bruit foofu wala ah lal bi ah, Beyoncé Beyoncé noonu loolu dina neex trop ba mu jóg nag ba may leen bii. eh Beyoncé Beyoncé Beyoncé man Viviane ma ànd Beyoncé kañ laa lay gis ah, dina rafet xaar ma tëdd <laughs> répétition yi dina ma def loo ah. waaw man bruit bi may dégg noonu mbaa jàmm la ah. non lii il faut ma woo il faut ma woo kii il faut ma woo Mbacke Dioum parce que son bi Beyoncé kañ la li gis you are giving me my people everybody my people Beyoncé kañ la li gis everybody my people everybody my people Beyoncé kañ la li gis everybody waaw boobu dina tag dina tag moom dina tag moom xam naa ne grand théâtre moom bu ma dugg see ba may bi Beyoncé Beyoncé Beyoncé Beyoncé Beyoncé Beyoncé ah dana toj <laughs> xaa ma nag ah sonn na Sali et Samba ku woote j'ai dormi ok mu sumi veer yi <sighs> su ma tëddee sumi veer sax du ma mën a nelaw attends <sighs> Beyoncé Beyoncé Beyoncé Beyoncé Beyoncé waa dugal dugal. dugal on a on a avocat dugal on a avocat dugal. dugal. yëkkatil kii bi on a on a on a. caabi oto bi mu ngi nii oui ay. faral portable yi jox ma. wuy sama morso bak salaam jàll ñëw na wuy sama morso bak salaam jàll ñëw na wub sàcc alo alo Mbacke Dioum Djidiack on m'a agressé wóor na yàlla yonent bi léegi la ñëw léegi non du morso bu bees bi laay kafuma wóor na yàlla du morso bu bees ah leen ma. <laughs> on a cambriolé ma maison, ma maison, on a cambriolé ma voiture, ma voiture, on a emporté mes 5 millions, 5 millions, ci la waroon terele gagné, on l'a emporté, on l'a emporté, on a cambriolé ma voiture, ma voiture, oui, on a cambriolé ma voiture, heureusement, papa Philippe avait dormi, ouh, ça tient, ça Salam Diallo woyoon nga ko viens Salam Diallo woyoon nga ko oups on a volé on a cambriolé ma voiture ma voiture oui on a cambriolé <laughs> allo Mbacké di xam nga lan la dama tëdd nelaw sàcc bi dugg teg ma pistolet bi jël cinq millions yi après jaar ne dem fee aw ne on a cambriolé ma voiture ma voiture on a cambriolé le 27 le 27 fu muy ami yaay sàcc bi sàcc bi na sa yaram daw oui